di len sante di len gërëm di len balu ak, ci wéru ramadan bi nga xamantene ne lañu la dugu, fas te bëgg ci duggu ci bismillahir rahmanir rahim bëgg yalla may ñu ci bañu fekke ko ba jéxal ko ci alhamdullilah bu nangol ñu suñu koor euh, man mak euh, njegen adama dañu yàgg liggéey doon liggéey ci social démarré woon ko si prison muy mag de Thiès mu am ay activités yu bare bare yoo xamante ne dañ ko doon defal chaque année di jàppale xale yi di jàppale prison bi mu am na yu bare bare yoo xamante ne tey suñ ko doon bëgg lim fii duñ fi jóge ci biir boobu nag mu amoon jàppale boo ne ñun dañ ko doon def di ko ñi nga xam ne dañ leen denc te foofu ñu nekk ñi war a woor te mënuñoo woor ci anam giñ ko buggee ça fait peut-être ñetti at yoo xamante ne ci gannaaw ña ngi koy def boobu man moom ak quelque bonne volonté yi nga xam ne ñooy association bi ñoo ko doon liggéey ren nag njigéen ci bëgg-bëggam ak pas-pasam mu ne dafa bëgg yaatal ko loolu moo tax mu indi tey ji yaatal bi mu ko yaatal indil ko tamit euh, jéem ko fësal pour que nit ñëpp yi xam te di ñaan tam muy loo xamante ne day tax nit ñi dugg ci mën la tamit mu jàpp ci keneen ku ci gis mu nekk loo xamante ne lu rafet la moom it mu def ci loxoom ndaxte prison bi muy hôpital muy daara yi ñun ñëpp ñoko bok kon ñepp ci wara def seen loxo loolu moo ñu ci boole ndax du tey nag yàgg na mais tey la ko Ndiéguène Fass yéene fësal. waaw intervention yi bëri na mais duñ bëgg rek wax intervention bu hôpital régional euh, bu euh, prison bu dixième parce que gis nañu sax salle d'attente yi dañ ci bind Pape Amadou Ndiaye est-ce que ba léegi ci biir activité yooyu la des. waaw moom mooy li ma doon wax ne que yàgg na ay ñun suñu activité ci prison bi euh, muy chambre yi nga xamante ne ñun ak oustaz Iran. manam Ibrahima Badiane am na ay activités sociales yu bare yoo xam ne ñun def ko fa ñun tamit ñun mooy man ak euh, njegeen ñun ñoo initié ba indi oustaz Ibrahima Badiane ba mu ñëw ci biir prison bi ba ñu xam ne nit koo xamante ne ku sensible la koo xam xol bi dafa gaaw a euh, toy moom ba mu ñëwee gis condition yi nga xam ne prisonniers ko doon dund mu ci def loxoom moom moo indi tey chambre yooyu nga gis moo indi mosquée bi moo indi yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lépp di liñ koy def pour jéem a seet nu ñuy dem ba jàppale askan wi ci social tey euh, seen intervention yi est ce que mun nañ jàpp euh, coup bi maanaam euh, ci wàllu koppoor li ngeen ci def alal nag ñun mësuñ ko compter lu ñu am def lu ñu am def yàlla rek a xam mais man mënuma la wax lenn laa mës ko def men mën naa wax ne lii mës ko def lenn da xam naa ko lu ñu am daal bokk kook askan bi Ah, ndog yi fi ñu koy toggee tey euh, ci quartier Grand Thiès la yéen ay woy politique ngeen ngeen nekk foofu est-ce que dafa am loo xamante ne koy lamb ci loolu. non non non politiquement amul parce que ñun lii bañ koy def euh, boobu xalaatuñu sax dugg si politique ba ñu doon jàppale euh, njëgeen ci prison bi di ci def te boobu kenn yëgu ko te kenn mësu ko dégg sax tey jii rek moom moo am idée bi ne da koy jël fësal ko mais boobu ñun bañ koy liggéey kenn mësu ko xam kon tey jii noonu mu ko defee moom. ci jëm boppam moo jël initiative ne da koy démarrer foofu mais du ci man moom moo ko def no fu ñu jëm ak la ñuy def yépp moom moo koy def man damay accompagner rek quoi mais man bokkuma ci benn décision ci fii lañ koy def ak fële. mais te lan ngay wax parce que bu dee euh, ñëpp bu ñu waxee docteur dañu ne docteur euh, politique lañ ko xamee euh, ak yenn action sociale yi jiitu na muy dugg ci politique te lan ngay wax ñi nekk ci langue politique bi ci diine bi ceesuwaay yi tey ñoom en général. damay ñaan rek ne ñëpp nañ booloo nekk benn ñun lu ñu am Cees lañ ko amee lu ñuy bëgg tamit mooy Cees nekk ci dëkk yi nga xam ne mooy gën ci dëkk yi mooy dëkk bi nga xamante ne mooy gën a naat lu ñu fi waay jéem mu matte ci loolu tam lañuy ñuy appeler tous les Thiessois kum mënti nekk ñi fi ne ak ñi ne ci biti pour que ñëpp ñu boolee suñ doole pour defar suñ dëkk suñu suuf tuuti na ci jëm benn pepp suuf mais soo ko boolee muy ab jal jal soo ko boolee mu dem ba nekk montagne kon bu kenn xeeb la mu am na ñëpp booloo ñu di ànd defar suñu dëkk ndax dëkk bi ñoo ko moom kenn duñu ko kenn du ko ñëw di ko defar à notre place nañ loolu loolu mooy la appel bi may lancé Thiessois yi ñi fi ne ak à des Thiessois qui sont à l'extérieur nañ ñëpp booloo defar suñu dëkk. Euh, voilà, docteur, euh, un résumé en, français. on va parler un peu de cette euh, marmite du cœur qui sera au bénéfice des populations de l'hôpital régional, la prison de dixième. En même temps, les dards de Idrissa Gueye. Est-ce revenir un peu sur cette activité qui a été pilonnée par Adama Adam Bon, c'est une activité que nous avons démarrée depuis plusieurs années. Mais c'est pour la première fois qu'elle est médiatisée et elle a pris cette ampleur. Et cela du fait de l'engagement de M. Armand Degen, qui est quelqu'un qui est très volontaire et qui a voulu, pour cette année, que cela prenne une autre dimension. Mais c'est une activité que nous avions l'habitude de faire, mais toujours dans la discrétion, sans que personne ne le sache. Un politique au sommet de cette activité Y a-t-il une récupération attendue Non, jamais. Parce que si on voulait faire une récupération politique, il y a eu des moments plus opportuns pour pouvoir le faire. Mais on ne l'a jamais fait. Il y a eu les élections locales, il y a des élections comme le référendum qui se sont passées. Mais nos activités sociales, on n'a jamais voulu les, euh, euh, les utiliser comme outil pour récupération politique. Mais aujourd'hui, ce sont des gens comme Adama qui ont voulu, de, manière euh, volontaire, euh, essayer de le médiatiser afin que cela soit un exemple pour les autres, pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, afin que ceux qui sont incapables de pouvoir subvenir à leurs besoins dans des moments qui sont des moments aussi importants comme le mois de Ramadan, qui est un moment, de partage, un mois, un mois <clears throat> de générosité, que tout le monde puisse également euh, aider et accéder pour que ces gens-là puissent aussi faire un jeûne dans de meilleures conditions. C'est ça le, but, mais il n'y a aucun soupassement politique ni rien du tout. Donc on peut dire que ce sont les activités, les actions sociales que le docteur a toujours fait dans Thiès qui continuent en dehors euh, de l'homme politique. Oui, ce sont des, actions que, qu'on avait l'habitude de faire et qu'on continue, mais bon, euh, il y a aujourd'hui, on veut que cela prenne une autre dimension, c'est pourquoi nous l'avons médiatisé et on, a, on est sorti pour que tout le monde sache un peu. Mais ce sont des actions qu'on a toujours menées, qu'on a menées l'année dernière et qu'on avait menées les années euh, d'avant. Mais aujourd'hui, euh, du fait de l'engagement de Adama, on a voulu aujourd'hui tout, que tout le monde euh, soit au courant. Le message que nous lançons, c'est que nous demandons à tous les soient d'être unis et que chacun mette la main à la pâte. Il ne faut pas que on puisse penser que on n'est pas assez riche ou on n'est pas assez de, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir aider. Il faut que tout le monde, uni, comme un seul homme, on essaye de redorer le blason de notre ville. Cette ville ne sera que ce que nous, nous en ferons. Nous, les Tchessois, c'est à nous de refaire notre ville. Nous n'attendons personne, c'est à nous de démarrer et les autres peut-être viendront mettre la main à la pâte. C'est ça notre objectif et c'est le, euh, euh, c'est ce que euh, nous voulons lancer à tous les Tchessois, que tout le monde vienne nous aider, vienne avec nous pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse aider les gens qui sont démunis.